waaw salaamaaleykum suma gars yi donc maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp donc dafa am euh, loo xam ni dafa metti woon les artistes ñun ñëpp ñu koy kaas ci ministre bi nga xam ni dafa ofon par rapport ak njabootam bi nga xam ni euh, moom la ko le président Macky dénk tey jii ñu gis ne ministre bi tey dafa dajale presse bi di wër ci artistes dem kër Youssou Ndour dem kër chonsek. Euh, Seck dem kër Ismaïla Lô di wër kër artiste yi te président contexte bi ñu nekk ni slogan bi Sénégal yëpp jël mooy restez chez vous il faut que le ministre toog këram il faut na toog këram parce que tay ji artiste yi bu ñu amee lu leen metti ñu koy kaas soo bëggee mu jaar yoon da ngay invité sa njaboot nga toog nga waxtaan ak ñoom parce que artistes yi nek Sénégal yépp mëno daj sen kër mëno wër kër artistes yi nek Sénégal yépp ni da nga leen di séti donc encore une fois li ma leen doon wax ni ki liñ ko dénk xamuko wala ñi koy conseiller liñ koy conseiller baaxul mooy lii un bon ministre tay jii bu fekkee ni sa njaboot dafa yëngatu même bu du sax un bon ministre tay bo yoré njaboot sa njaboot yëngatu da ngay xol ñi yëngatu nga wolé leen lan mo leen naxari mais li c'est divisé pour mieux régner artiste bu ñëw nak sa kër so amé soxla wax ko ko su la joxee xaalis jëlal ndax lim la jox ya ko mom mais nak li président wax dama bëggoon sénégalais yëpp respecté ko mooy le président feebar bi du Covid 19 boo koy xeex da ngay toog sa kër il faut que le ministre toog këram reste chez toi merci.